le premier ministre dem na ñu dindi ko ci seen règlement premier ministre ñëwaat na ñu war ko delloo waat ci seen règlement delloo guñ ko le premier ministre dès le dès le 16 mai la bindoon ay ministre am nee leen pour ñu remonter seen données yi pour la déclaration de politique générale à l' assemblée nationale loolu lañ bind ci circulaire bi kon kooku mu ngi ci logique ku dem def sa déclaration à l' assemblée nationale mais bu ko benn député interpellé nee ko bu fi ñëw parce que règlement intérieur bi ci sa prédécesseur lañ leen waxoon ne adapté ñu bañ ko changé ba tey toogal bu ñu changé ko mu répondre ko c'est quoi de plus normal après li ci metti waa assemblée nationale mooy nee na leen su ma génnee defi ko feneen day gën a am qualité mais naka ma di jël paaram pour moi c'est une question milité ñi nekk assemblée nationale ay ndaanan lañ ñu xarañ lañ mais c'est que cent soixante cinq personnes sur dix huit million de sénégalais kon évidemment bu ñu defee beneen sélection sur dix huit millions de sénégalais et de compétences potentielles dinañ am une meilleure qualité avec beaucoup plus de spécifi spécialité et d' expérience d' expertise en dehors de l' assemblée nationale kon dans le principe même évidemment ku mën di tenir un débat tenir ko assemblée nationale dina am qualité de waaye boo génnee ci biti di nga am ñu gën a xarañ ku ne ci biir assemblée nationale bi. non wax non maa ngi ñëw non waxuma loolu. je suis en de dire lu métti assemblée nationale mooy bi premier ministre nee na bu ma ko defee ci biti dina gën a am qualité. ma ne gën a am qualité boobu mooy nangu na ne qualité dina am assemblée waaye ci biti lay qualité de qualité de EP. ma ne loolu warul métti waa assemblée nationale parce que question humilité la kese muy benn bi ci tegu mooy wax dëgg yàlla politique nag. ku ne xam na nag du raayante yenn saa yi mu am ay pic yenn am saa yi mu am ay xuloo wala am ay mbiicoo mbaalo ak politique ñoo ànd waaye nag bu la nit waxee loolu mu metti la bul na man damay dem violer loi parce que le document d'orientation budgétaire bi ñu waroon discuter à l'Assemblée ministre de l'économie et des finances préparé ko ñu adopté ko en conseil des ministres mu dem assemblée nationale toog deux heures de temps ñu ñëw ne ko tëj nañ session bi doo fi def document kii débat d' orientation budgétaire bi pourtant loi organique bi dafa ne débat d' orientation budgétaire dafa war am au plus tard le trente juin loolu loi organique la bu nekkoon en matière finance publique c' la constitution du Sénégal kon premier ministre wax na ma lu moo métti joxul kenn autorisation mu violer la constitution financière du Sénégal loolu erreur la mais bi ma ko déggee ba pare dama woo le président de l'Assemblée nationale mu ñëw ñu waxtaan ma ne ko mais defar leen seen règlement intérieur li ci nekkul woon parce que di ngeen ko dind woon ndax premier ministre amatul woon léegi premier ministre am na delloowaat leen ko kii ñëw def déclaration de patrimoine déclaration de politique générale loolu jarul ñu bañ a tenir débat d'orientation réew mi ñoo ko bokk nañ ko waxtaane bu coow nag mën mënta ñàkk ci politique mais bu mu ñu yóbbu ci salfaañe yoon parce que waruma mais waru leen parce que yéenay voté rek yoon woo xamante ne dafay tegu ci ñun ñëpp y compris man mii kon demal waxtaan teg président de groupe parlementaire yëpp ngeen fexe jàpp bés ci nu mu gën a gaawee ngeen mais defaat la mise à jour du règlement intérieur parce que wax dëgg yàlla bu falsification amee du ñun ñu nekkoon majorité ñoo ko def waaye ngeen defaraat seen règlement intérieur premier ministre ñëw def la déclaration de politique générale ku ne xam na assemblée coowoo fa nekk bu ñëwee coow li continuer foofu parce que mënta ñàkk waxtaan nañu ci ci jàmm ci kaf agré dem na démb tenir nañu réunion décidé nañu mardi président de groupe yi dajewaat pour dem ci mise à jour règlement intérieur bi bu ko defee jàmm ne ñooy ci diggante bi parce que premier ministre dafa waxoon lundi lay def décla kii déclaration devant un jury populaire jury populaire tamit askanu Sénégal la rek mais dama ko ne premier ministre teggil sa tànk gannaaw waxtaan ak assemblée bu ñu ne règlement intérieur bi amoon problème falsification dinañ ko defaat mise à jour nga may leen diir boobu semaine bii di ñëw incha allahu rabbi xanaa bu ñu waxtaanee mardi ci jàmm xanaa ñu laaj leen rek ci njëkk ak teranga falsification bi ñu corrigé ko yow nga dem. def sa déclaration de patrimoine kon man tooguma benn yoon waxtaan naa te gëm naa ne waa assemblée may nañ ñu ma ko en tout cas premier ministre may na ma ko dootu ko doo dootul defati déclaration de politique générale populaire boobu mu ñu waxoon. kon contrairement à ce que nit ñi di yaakaar liggéey naa ci li ma jàppoon na mooy sama wàll parce que sama discours très 3 juin tamit 3 avril tamit dama ne woon dama bëgg nekk un président qui est au-dessus de la mêlée. au-dessus de la mêlée nag mooy bu problème amee da xool. naka ngay waxtaane ku ci lu mu jàppoon moom moy dëggam pour mën a réconcilier les positions parce que en fait après tout ay sénégalais la ñu rek la hauteur d'esprit ICO tamit à la hauteur de la de notre peuple qui est un grand peuple pour yenn yi ñu def l'économie de certains débats qui peuvent se révéler inutiles. bi ci des nag nga question aussi ci situation politique bi ba tey jëmale ci diggante président ak premier ministre. bon il faut que xam mhm. tamit sama diggante ak premier ministre. xam ngeen bu ngeen xoolee xëy na bàyyiwuñ ci xel.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 dem hôtel Azalay def sama conférence de presse conjointe ak moom lan laa waxoon j'ai repris des recommandations de la CNRI parce que Sénégal qu'on le dise ou pas man ni ma ko doon waxee démb laa koy wax tey le président de la République a trop de pouvoir damaa ko waxoon fekk ne comme président damaa ko waxoon fekk ne comme président elle ne peut pas être plus importante que les aspirations du peuple sénégalais, encore moins pour le li Maintenant, ce xaar nag au-delà de, de, de, li wax nii bu dee bi de ce que nous avons dit, si ci ñoom na xam ne lu muy wax eux sait ce qu'il dit, moo tax Parce que naa ne même ñi wax sax pour opposer wu kese bés dina ñëw ñu wax loo xamante ne dëgg la ak njëriñ la te bu boobaa dama koy jël doxal ko pour njëriñu seen njëriñu askanu Sénégal mais bu dee seen agenda nag mooy ñoom ñaar tôt ou tard dañu am problème ñaar ñi ànd di ñooy am problème que mu nekk jëkk rek jabar mag ak rak papa ak doom yaay ak doom xarit seytaane fu ne lay dugg mais dinaa raconter rek une petite anecdote man le le premier ministre du woon sama xarit ah du woon sama xarit de mais avant ñuy génn kaso bu ñu commencé may pour ñu togg ci lañ waxtaan ci situation bii nit ñi di wax mu wóor ma ne li ko mën a def rek mooy kii ñëw wax fii dem wax fële wala di wax fii di wax fële en tout cas ñi compter par exemple pour pour pour pour pour puus ma puus ma ba ma gis sama bopp moom nañu noppal man je suis pas comme ça je suis quelqu'un de très lucide de très froid et de très humble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 nga jàpp ni président de la république bu Sénégal dafa bëri pouvoir mais suñu demee ba koy wàññi itam dafa am si ay textes yi nga xam ni peut-être moom moo ko war a def est-ce que tey jile foofu la ñu toll maanaam est-ce que da nga ndell lenn say pouvoir jox ko jamono jile wala déet non c'est pas encore fait parce que ça nécessite des réformes mais je le dis hein c'est quand il veut nee naa ko mais justement monsieur le président euh, sur, cette question la est-ce qu'on doit que yow da nga jàpp ni benn mën naa ngay def et que liggéey bi ngay def moom mooy installé ko moom à la présidence de la République ma enchaîner sur ces réforme la yi ñuy wax noo ko nar a defee est-ce que c'est par référendum wala dangay ngay jéem a dissoudre assemblée nationale bu nekkee da nga ko nar a def kañ nga ko nar a def pour que mu jàll sous forme de loi constitutionnelle euh, li ci euh, ëpp solo daal moom mooy que ni jàpp nañ ni réglé nga problème bi ñu ngi koy doog a xam tey jii nii mais surtout ban euh, ban ban plan nga am justement pour installer euh, monsieur Ousmane Sonko euh, qui est un premier ministre boo xam ne doole bi mu am bi raar na ñu gis ko fii ci Sénégal. pour mu mu nekk à la présidence. toog ci fauteuil bi ni ko waxee non distingue leen ñaari mbir. le premier ministre na amul benn doole. parce que prérogative bi constitution bi mooy ne lii le président di def lii le premier ministre di def. tey boo demee ci constitution bi le premier ministre est très faible loolu changé wul ci diggante bi ah constitutionnellement le premier ministre est faible. ça dans li comme li doole bi mu am ñaara ko waral boo bëggoon def nit président de la république ba am ko am ko premier ministre doo sant yàlla xanaa nga jékki-jékki changé gis sa bopp bëgg leneen quoi mais bu dee raisonnablement koo bëggoon def président mu moom lépp tey lépp. yàlla defee mbir mi ne yow nga mën a compter ci moom mu nekk premier ministre mais da ngay xam lan nga am nga téye ko fukki ju loxo ak juróom-ñaar ça c'est une question de raison naturelle quoi benn j'avais di que dañoo war a wàññi les pouvoirs du président yokkal ko le premier ministre pour équilibrer au sein de l'exécutif instant yi nii rôle bu lu mu amee nii xam lan moo ko ko may sa stature nga bëgg ko nag nga bañ ko eh bien voilà celui qui élit une liste de titulaires de députés nga bëgg ko nga bañ ko voilà quelqu'un ki dit dem leen falke en en dix jours ñu génn battre campagne ñëpp a dégg ko voilà quelqu'un qui koo xam dañ ko teglu ne il a résisté ni ay nit pour luy changer réew mi mais même su ma ci bëggoon euh, tëj sama bët sax su ma ci tëjee sama bët sama xel di ko gis te man soxoruma vis-à-vis de moom ni vis-à-vis de personne nee naa la tey laa ko gën a yéene mu nekk président de la république waxuma naa nag euh, xanaa président bu toog ñetti weer cent jours nga bëgg wax ci waxu mandat xanaa bëgg coowal journaliste kese la ay yéenawul maana te duma ci teel a wax de gars yi dinañ ko xaar lu yàgg duñ ko dégg duñ ko dégg de maintenant yan pexe laa am instant yi nii man il fait un excellent travail formidable bu fekkee ne j'ai pu sur le plan international dox agenda bi ma dox te dara soo ci réew mi c'est parce que dama am premier ministre bu mel ni moom sama gannaaw mu wóor ma ne que lu ma bàyyi ci loxo mel na maa ko téye sama loxo wala sax ni ko gën la koy téye je suis très serein parce que j'ai le meilleur des premiers ministres de l'histoire du Sénégal loolu laa jàpp te gis nga noonu ni ma ko jàppee noonu noonu laa koy fonkee nag ak lépp loo xamante ne mu ma koy wax beneen bi nag euh, Souleymane gis nga boo amee koo xam ne ragalu laa wax dëgg xool lu la neex te bëgg na la ba nga xam ne kii bëgg na la teg na la fu sori won la ko du benn yoon du ñaari yoon danga koy bàyyee nopp man Ousmane soxlaatul woon ma dara pour ma xam fan laa fan fan la fan laa nekk fan la ma teg 2021 damaa toog ba étau bi commencé resserré wu trop autour de moi beaucoup de filature ma ne naa dem village seeti samay waajur balaa may ñëwaat parce que boo moytul buñ ma jàppee mën na yàgg ma leen gis may ñibbi si mu woo ma ne ma dañ maa wax ne ñu ngi lay file waaye jubalal sama kër ba kenn fekk la fi ma ne ko man sama kër laay jubal <laughs> parce que bu dee dañ ma war a jàpp autant nga bañ am problème sa kër ma indil la ko deux mille vingt et mille vingt trois moom ma njëkk a woo nee ma dégg naa ne ñu ngi lay seet pour arrêter la waaye man maa ngi ñëw foofu ma ne ko boo fi naree ñëw ma dem léegi jox jébal sama bopp dikk soxlawuma paternalisme boobu c'est pas un paternalisme c'est un excès d'affection bu mu am ci man nga am loolu nu mu métti métti métti fii mooy sal conseil des ministre maag moom fee la ñuy nekk le conseil des ministres passé bi ñëpp a demee def nañu lu mat deux heures de temps fii di waxtaan muy wax lu mu jàppan mooy dëgg mooy wax li mu jàppan mooy dëgg parce que bi may nekk sax secretaire général wala avant ci biir parti bi man li ma xalaat laa ko doon wax du ma xool lu ko neex ak lu ko neexul dañoo habitué de am des divergences normal entre nous ci waroo kaddu parce que divergence yooyu yëpp c'est comment rechercher la meilleure idée est la meilleure solution au problème que nous sommes en train d'adresser kon ñiy xaar loolu moom mën nañ maxee fu ñu nekk wax dëgg yàlla mais ah du demee niñ ko yaakaare de alors président euh, euh, ñu ngi euh, gis ne conseil supérieur de la magistrature bañ la déggee nga àddu ci ba noppi lañ dégg daal mooy nii wii nii non bu président Macky Sall <laughs> leerul daal ci suñu bopp ñu bëgg a xam da ngay génn wala da ngay toog sénégalais yi bëgg nañu leeral euh, beneen euh, ponk bi mooy euh, déclaration de patrimoine ñu ngi koy xaar boobu itam ñi ngi naan kañale ko conseil constitutionnel di fësal sa bos en tout cas ndax moo yitteel ñu bëri ñu xool tolluwaay bi Euh, ci mujj bi dinaa ko ci euh, ñambaas rek muy wàllu foncier ndax mënoo fi toog te duñ la ko laaj gis nañ ni suuf nekk na loo xamante ne euh, jafe-jafe la ba premier ministre ba mu demee fu mel ni kaat wax na ñi récupérer nañ lu toll ci parcelle parcelles mille parcelle yooyu état daf ko récupérer dédommagé ña ko moomoon wala ñu xam beneen bi mooy littoral bi commission ad bi nga xam ni teg nañ ko bu ñu noppee ci liggéey bi dañuy euh, xalaat ñu raser yenn ci construction yi wala yi fa des ci ruq yi daal foofu la ñu war a jaar ngir mën a bénéficier ci géej gi d'abord pour conseil supérieur la magistrature dama gëm ne justice bi elle est rendue au nom du peuple moo tax bu ñuy def assise ñëpp la ñuy woo y compris les détenus ñëpp la ñuy woo y compris ñi nga xamante ne tàmmuñu tàmmuñu di leen woo ci bu ñu doon wax loo xamante ne dafa dafa dafa soxal réew mi cette gouvernance constructive inclusive participative moo ñuy may ñu retenir les meilleures solution parce que su ma sañoon problème bu ñu identifier ba toog ci ba waxtaan mu nekk bu feetee boor ñu dem songi beneen conseil supérieur la magistrature sama entourage laa ci njëkk a waxtaanal ci bi débat yi commencé par chaque jour dañu ma doon defal le rapport journal yi ma ne ci kenn yow xam nga lan moo nekkoon sama sama position ci conseil supérieur de la magistrature ndax ñëw nga fekk ma kaso bu ngeen demee ngeen laaj ko Aliou dafa ñëw ma ne ko seede ngay doon ci man lii laa xalaat ci conseil supérieur la magistrature ma ne ko dund naa ma ne mën naa dundaat quarante quatre ans du ma fa siège donc du obsession personnelle ci man ma siège conseil supérieur la magistrature parce que gëm naa ne conseil des ministres moo gën a kafe kawe conseil supérieur de la mais lu tax ñu ne woon président dafa war a génn conseil supérieur de la lan moo tax quel était l'objectif mooy pour garantir l'indépendance des magistrats oui ou no wii léegi ces mêmes magistrats là ne déedéet président bul dem te ñoom bëgg nañoo indépendant je dis nañu bàyyi xel li tax ñoom ñu ne président desal ce que de dire mais personnellement toog conseil supérieur de la magistrature ak bañ faa toog la yemale mais les un mois que j'ai pris mobiliser sama tous les services de l'État tous mais collaborateurs pour enquêter sur certes sur beaucoup de postes sur quel est le profil de magistrat qu'il faut y mettre ba démb maag premier ministre liggéey nañ ci jusqu'à minuit mu doog a ñibbi su ma génnee conseil supérieur de la magistrature il faut bien que quelqu'un fasse ça kan lay nekk ak yan garantie lay lay lay am ne dina ko dina ko def ni ma koy defee xawma ma mais cela ne veut pas dire que sans moi c'est le déluge parce que d'autres pays ont fait cette option une autre option mais je dis que puisque indépendance magistrat la ñuy bëgg te magistrat bëgg nañoo indépendant bu magistrat yi ne na président des na leen président déglu parce que su ma génnee c'est pas Pierre Edouard qui va être indépendant C'est juste ce que je dis. Maintenant, au moment où on me le rapport, je pas encore lu les arguments des tenants de toog et les arguments des tenants de dem Toujours est-il que les assisards ont convenu d'une chose. mooy conseil supérieur de la magistrature même bu fa président waratul nekk rek question de président ak magistrat yi que am na yeneen sénégalais yoo xamante ne war nañoo dugg ci biir conseil supérieur de la magistrature et sous ce registre aw ma ci problème parce que def naa ko avec le COS-Petrogaz j'ai signé un décret la la la semaine dernière pour davantage ouvrir le le le le COS-Petrogaz j'ai mis aujourd'hui des des représentants de la communauté universitaire j'ai mis des représentants des syndicats des organisations syndicales ñaar sax j'ai mis des organisations un représentant de l'ordre national des experts du Sénégal et j'ai dit parce que dañu waxoon rek un représentant de l'opposition duñu xam lu ñu koy fale j'ai dit le candidat arrivé à la dernière élection deuxième wala comme mu désigné ak ki nga xamante ne mooy le parti ou la coalition des partis politiques qui est la mieux représentée à l'Assemblée nationale plus le représentant de l'Assemblée nationale en tant que euh, institution kon que le, le, le conseil supérieur soit ouvert il le sera avec ou sans moi il le sera maintenant décider de rester ou pas j'attendrai de lire les arguments parce que bi ma doon wax keroog je venais de recevoir le, le, le rapport je ne l'ai pas encore lu j'ai pas encore vu les arguments de Nadem et les arguments de Togo mais ceux qui sont censés dont mon départ est censé garantir leur indépendance quand ils disent na président Togo en toute froideur en toute lucidité avec le recul qu'il faut je veux entendre ces arguments là et voir le poids qu'ils donnent si c'est des arguments qui me convainquent je Si c'est des arguments qui ne me convainquent pas, j'en partirai. C'est aussi simple que ça pour moi. boobu may relance foofu beaucoup d' observateurs nee nañu magistrats yi dañoo bëgg yow rek nga das euh, conseil supérieur de la magistrature c' est pour mieux faire passer des doléances euh, corporatistes et, si c' est le cas lan moo nar a doon sa sa position. non man d' man je crois pas au corporatisme fi ma nekkoon bokk ci corps corporatisme ensuite pourquoi mais xool la démarche des assises. est-ce que magistrat yi rek laa ci waxtaana non pourtant les magistrats avaient avaient écrit sur ce que devait être la justice mais ñan laa woo ci ci ci kii bi j'ai appelé les les journalistes la convention des jeunes reporters a été invitée les détenus les les les kii coutumiers les ordres professionnels ñëpp lañ woo xool leen les les des assises donc je crois foncièrement que la justice étant rendue au nom du peuple est une affaire du peuple Ce n'est pas une affaire du président de la République et des magistrats. Mais les magistrats étant des fonctionnaires doivent être affectés. Moi, je suis fonctionnaire, hein, vous le Si je n'étais pas passé président de la République, demain de à la direction générale des impôts et domaines. Et de 2014 où je suis, non, même pas 2014, 2007, je 2023, le 14, le 14 avril à, à 22h, quel m'a donné décider de ma affectation C'était le ministre des Finances. mais est-ce que tere na ma lima li ma doon xalaat ci réew ma koy wax li ma war a taxawee ci biir impôt ma koy taxawee non je pense qu'il faut aller au-delà de ça parce que l'indépendance c'est pas par rapport au à l'exécutif kese c'est aussi à certains lobbies à certains certaines forces organisées au capital à certains groupes de pression donc ne prenons pas l'ombre pour la proie quand il faut adresser cette question-là nous devons le faire sans passion parce que gëm naa ne cette réforme-là elle doit et se détacher des des des personnes yoo xamante ne ñoo nekk tey c' est pas une réforme qu'on fait pour man même quand on dit le président de la république dafa war a des ou pas bu ñu gis Diomaye nañu gis le président qui qu'il soit dans le futur qui viendra voilà lu fay fekk pour qu'on la meilleure organisation déclaration de patrimoine man loi lan la mu wax mooy naa ko déclarer te tënk ko ma sax ci délai boo demee ci conseil le président de la république article 37 fait sa déclaration de patrimoine le conseil constitutionnel la rend publique dara tënk ma woon pour ma def ko dans trois mois dans nangam nangam mais damaa gis ne puisque les autres membres du gouvernement da leen tënk ci ci ci ci ci trois mois kon c'est un délai raisonnable pour man tamit ma dem def sama déclaration de patrimoine bi ma ko defee ba pare nag man je ne suis pas le conseil constitutionnel qui fait de l'ordre ils ont la latitude de, le, de la publier quand ils veulent waa conseil bu leen neexee ñu def ko léegi nii wala suba wala gannaaw suba man li ma war woon mooy déposer j'avais pas de contrainte de délai j'ai déposé au même moment que tout le monde conseil nag mooy xool ci afiyam kañ lay kañ lay kañ lay kañ lay publier ou kañ lay bañ a publier mais comme je l'avais dit du évaluer c'est les même bien j'ai tenu. Je poser la question, est même, euh, même, même, patrimoine bien déclaré non, non, verrez, avant et après Vous verrez entre-temps, peut-être que le président de la République, comme nous avons dit, nous avons Lamine Don Wahé, euh, dañ ko dañ ko ñàgg ci yenn yi man su may voyagé tey je ne vais pas acheter un billet <laughs> du taxawaat ci ci nan naan damay jënd essence te pourtant ñu ngi may fay lu ñu may fay mu ngi dugg sama compte